mais ñëwal ñëwal ci Diagne solution. en fait en fait en fait pour le le le kii man dama bëgg a xam yéen ban taxawaay ngeen am ak seen ñaari candidat yu déclaré wu Ousmane Sonko d'un côté euh, Bassirou Diomaye Faye de l'autre côté euh, nan la nan ngeen fas yéene doxalee ak sénégal yi. par ah. rapport ak ñaari candidature yooyu. niñ fase doxalee sénégalais yi mooy sénégalais yi ñoom ñooy tànn rek ñun joxe nañ. si kaw sax Ousmane Sonko ñu bosom jàll parce que yaa ngi wax ne fexe na ba mu bokk mais euh, euh, le dernier mot du conseil constitutionnel moom la ñuy xaar waaw foofu effectivement foofu moom dañ fay xaar conseil constitutionnel parce que man euh, la fois passée muy 2019 bu conseil astafurlah 2000 kii 12 bi bi Macky di jël pouvoir bi ñu bëri dañ mere woon Ablaye Wade. 2012 maître Ablaye Wade. 2012 mhm. maître Ablaye Wade parce que dañ ne woon waru amul droit def troisième mandat ñun ñëpp ñu àndoon ci kii boobu noonu effort bi ne warul nekk parce que ñu bëri xooluñu woon constitution bi mais bi. peut-être bi ma déggee benn le député maire euh, Barthélémy Toye Dias mu ne effectivement waroon na bokk mais ñun ñoo ko doon ñoo doon manigance kon ñun it yóbbu woon nañ ñu ci benn manigance boo xam ne comprendre ñu woon kon peut-être ñoom li defoon droit la. kon nag léegi droit boobu ñu defoon te ñu jëloon seen responsabilité ñu ngi leen di xaar nag ci droit boobu aussi tamit ci con ci 2024 euh, bi ñu def droit droit nag mooy li teg si bind ak li nga xam ne mooy yoon. te tamit bu ñu ne sage mooy ku sage maanaam ku am sagesse. sagesse boobu nag soxla nañ ko ci ñoom te je pense que ne sagesse boobu dinañ ko doxal ci côté président Ousmane Sonko que gis nañu fitnaal ak jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi ko koy ñu ngi ko koy jéem a imposer ñu fexe nañ ba ko ci liste bi te waruñ ko ci dindi amul lenn loo xam ne ne yoon teg na ko ba mu définitif mais terewul ñii ñu ngi seet yan prox ndool la ñuy pour mun ko ci génnee te je pense que ne. Euh, sage yi mooy wane sagesse boobu noonu dinañ jëmmal seen sagesse boobu parce que nag l'histoire retiendra parce que tey sunu euh, maam kii euh, papay Abdoulaye euh, kii Abdoul mbay le juge Kéba mbay defe naa def na fi jaloor yu historique ba tey kenn du ko mës a fàtte ci àdduna te ñoom it defe naa ne sage yi tamit dinañ fexe ba loolu ñuy jëmmal ak loolu ñuy def ñu def ko ba telle sorte que ne l'histoire retiendra que leurs enfants leurs arrière enfants yëpp ñu bàyyi xel que ne loolu lu am solo la parce que nag àdduna day dox te àdduna lu. nekkul ci nekkul ci liste yi ba euh, déposé wul caution enfin euh, caution ak wuñ ko. parrainage euh, parrainage bon mën nañu xam parenage parrainage citoyen la def wala parrainage kii mais en tout cas ñi ma wóor mooy CDC con fële na le de dépôt et consignation jëlul caution bi moom delloon ko ci liste yi avec ça vous avez quand même espoir que mu bokk. waa effectivement mais CDC dépose kii nañ joxe nañ caution bi. jox nañu reçu pour wane ne jox nañ peut-être quittance bi lañ nangul te joxe. moom mooy quittance bi rek. waaw mais ba tey mais joxe nañu reçu moom bi ñu jëlee bi ñuy demee ba ay dafay demee ñoom joxe nañ ko reçu. mais xam nga reçu bi de moom la ñuy yóbbu fële. conseil ah, moom lañ yóbbu mais tamit la taxoon ñoom bi ñuy demaatee gis nañ avec euh, huissier bi nga xam ne ne ànd na ak ayib dafe huissier loolu mooy liggéeyam. loolu mooy njëriñam pour constater. te en plus tamit euh, bu dee kii citoyen kii citoyen ne gis nañ ne élus yi mën nañ ko ci jëmmal te defe naa am nañ plus de trise députés te incha allah ci loolu la ñuy